comme ni nga ko xamee conseil national de la jeunesse euh, depuis mois d'avril danoo lancé woon benn programme ñu tuddee ko PASC e CNJ ak Union européenne mais aussi ak organisation de jeunesse yi nga xamante ni ñoo nekk euh, Sénégal euh, li ci ëpp solo nag mooy que ni tey danoo constaté ni projet ak programme yëpp état bi moo daan def évaluation bi mais tey ñun conseil national de ñu décider ni eh, dañuy choisir jeune bi nga xamante ni moom la concerné mu mën a évaluer li nga xamante ni état mi ngi koy def li jëm ci mbirum euh, ndaw ñi looloo tax ñu recruter 46. Euh, enquêteurs ak onze superviseur ci région de dacar région de Saint-Louis ak région de Ziguinchor pour que ndaw yooyu dem càmbar li nga xamante ni état bi mi ngi koy def te jëmale ko ci ndaw ñi looloo waral tey ndaje bi. Euh, étude boobu nga xamante ni def nañ ko ñu restituer li nga xamante ni mooy résultat yi résultat yi nag am na lu bari lu loo xamante ni euh, wane na ko li ci ëpp solo mooy que ni jeunesse su Sénégal tey ñu ci bari tey gëmatuñu projet ak programme yi nga xamante ni état bi moo ngi koy def euh, jeunes yi aussi tamit li nga xamante ni tamit wane wane nañ ko ci résultat bi mooy que ni collectivité territoriale yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñooñu gisuñu seen njariñ ci li nga xamante ni mooy projet ak programme jeunesse yi nga xamante ni ñu ngi koy tëral ci réew mi ba pare aussi tamit collectivités territoriales yi doon raar la ci yiñ ciy gis yoo xamante ni am na benn projet wala benn jàppale boo xamante ni mi ngi koy def ci jeunesse bi looloo tax tey jii ñu ni conseil national de la jeunesse il faut que ñu sensibiliser suñu partenaires yi commencé ko ci état du Sénégal commencé ko ci partenaires technique et financiers yi nga xamante ni ñoo fi nekk mais aussi tamit ci collectivité da wan leen ni kat ah jeune bi kat danoo soxla loolu kat ci ay projet ak programme ci la mën a euh, nekk to ci kaw loolu nag il faut que ñu koy càmbar pour que ñu mën cee wax seen xalaat ba ngeen jël en compte préoccupation jeunesse bi te loolu kat ñun dinañ ko continuer wane ni kat jeunesse bi waruñu leen a mais dañ leen war a boole ci lépp loo xamante ni dañ koy def fii nga xamante ni mooy Sénégal jëm ci seen wàll parce que tey mënoo ni tey da ngay defal jeunesse bi projet ak programme mais doo ko laaj xalaatam mais aussi tamit du am possibilité tamit euh, càmbar ko évaluer ko loolu waroon tey bis bi nga xamante ni audit social projet et programme état yi nga xamante ni jot nañ ko fee def depuis 2012 ba léegi ñun euh, wàllum migration irrégulière dafa nekk suñu priorité fii nga xamante mooy conseil national de la jeunesse euh, parce que semaine bii passé organiser woon nañ benn forum bu mag fële ci Rufisque euh, boole ci ndaw yi Bargny ndaw yi Sénduñi ñu waxtaan li nga xamante ni tey jii mooy migration irrégulière tey jii bi laajee jeunes yi lan moo war a tax ñu ci bari di jël gaal gi wala di jël ay avion di dem ba Nicaragua après di jàll États-Unis ñoom li ñu njëkk a wax mooy que ni ah ñun kat amuñu possibilité dem ambassade ñu may ñu visa. amuñu possibilité day jafe aussi tamit ci ñoom ñu war a euh, dem am passeport ñu jox leen ko des fois difficulté yooyu mooy waral tey jeune bi tey préféré di jël gaal yi wala mu jaar ci désert bi pour mën a am visa ñun nag li nga xamante ni moom la ñuy ñaax état du Sénégal di ko ñaax dëkk yi nga xamante ni ñooy dalal les migrants mooy que ni ñu fexe ba tey jeune bi su su soxlaa tukki dem lu mel ni Europe wala États-Unis mën a am passeport te su amee passeport aussi tamit document yi nga xamante ni moom lañ koy laaj pour mu mën a am visa aussi tamit mu man ko matale te tey ku xam tey eh, ñi nga xamante ni tey ñooy liggéeyee Sénégal di évoluer ci li li naan économie informelle ñooñu tey amuñu benn possibilité tey pour ñu mën a am visa di dem ak dikk te tey su fekkente ni tey dañoo bëgg a xeex tey li nga xamante ni mooy migration irrégulière il faut que ñu yombalal ndaw yi li nga xamante ni mooy visa di dem ak ñëw ba dootuñu yaakaaraat ni tey mit am na Europe wala États-Unis wala asi bay jël gaal wala ñuy jël li nga xamante ni avion di def détour wala di jël euh, suuf si di jaar ci désert bi nga xamante ni tey ji mën nañ cee jàkkontooloog lu ne mais kon tey ji loolu li ko waral lépp mooy que ni tey lin soxla ci visa tey su fekkonte ni jeune bi day dem am ko du jaar foofu yëpp kon nag ñu ngi ñaax euh, euh, état du Sénégal mu jàppale jeunesse su Sénégal par rapport li nga xamante ni mooy visa légal mais aussi tamit noté nañ ni tey ji pour nga jël rendez-vous rek pour dem ambassade rek problème la beneen difficulté bi nga xamante ni aussi tamit jeunes yi ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy rencontré mooy passeport tey des fois tey su fekkente ni da ngaa bëgg a sa passeport wala musoo am passeport des fois dañ lay jox ay délai de un mois deux mois trois mois des fois même ba quatre mois te tey jeune bi tey dafa war a tey su fekkente ni war naa am passeport en deux jours war na ko mën a am te loolu amoon na bu njëkk mais amatul donc il faut que état bi redoubler d'effort par rapport à l'obtention de passeport pour mën a permettre jeune bi fépp fu mu mën a tukki ci àdduna mu mu dem fa ci voie légale